Oh, Hoy illallah la ilaha illallah jox ko Cheikh Ibrahim Baye Diallo mu ubbee ko ci alquran comme niñ amee aada di ko def waaye suñ dem ba xëy iman di Usman Ndiaye rajo Usman, mu dalal ganam suñ juga jógee nag di dugg direct ci conférence bi ak sëriñ bi kon fadilatu cheikh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

délégation maire ñooñu itam ñu ci yegg si nañ xam naa bu ñu yeggee ba ca cappaandaw ja ñoom dinañ mën jël kàddu parce que wax bi fii ne xat na xat boo xam ne nii jot na dañuy def rek gërëm ñëpp sant ñëpp dama gani leen bisimila ñu jox sëriñ bi kàddu bi su ko di dugg sóobu ci mbir mi soo soob yàlla ko defee ñu war wax yëpp préfet yegg si na yooyu itam ahlan wa sahlan wa marhaban bikum yegg si nga ci sa kër yegg si nga sa place fekk nga fi kilifa bu mag kilifa bu tedd bu ñu xam ci tund bi bu ñu xam ci Sénégal bu ñu xam ci àdduna bi muy alxaaji Amadou Sakho samedi passé rek ñëpp yëpp nañ dégg nañ bésam bu tedd bi nga xam ne amoon na ko ci kër soosu mu nekk loo xam ne nii macha allah moom moo ñu war a defar conférence bii tey muy conférence boo xam ne ne day wax ci diggante mbokk ak borom mbokkam ci islam loolu moo tax ba gis ngeen jël kàddu bi di dëkk bisimilah yéen seen jàpp. nañ bokk wax alhamdulilah ñun ñëpp nañ bokk julli ci yoon nit andi si na tuuti السلام عليكم ورحمة الله تعالى nuyu nañ imaam nuyu borom dëkk góor jigéen Policía de tu boobu julli amut de weeru koor amut de aj màkka amut de génne asaka amut ana lan moo amoon qul huwa allahu ahad gëm xool si la lépp la deferoo ndax nabil mustafa daf ne alxalaalu bayinun walxaraamu bayinun wa baynahuma umurun mutashaabihaat fa man ittaqa subuhaati تبرأ لدينه ومن وقع فيها يكون كراهي أو للهما يوشك أن يقع فيه ألا إن لكل ملك هما وإن هما له محارمه ألا إن في الجسد متقى إذا سلحت سلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب dangay gëm islaam mën a taxaw mbokk mën a taxaw na innama al muminun ixwatun jullit yi ay mbokk lañ ci kaw ko xam du dëñ ana lan moo ca tegee fa aslihu bayna axawaykum borom doole santaane na nee na yéwén na leen diggante mbo seen diggante ndax bi yàlla bindee doom aadama la bind seytaane boole koog moom mu may seytaane pouvoir bu toll naka ni deret di dawee ci doomu aadama seytaane noonu lay dawee ci nit te yàq moo ko tax a jot te ak mbokk bu yàqoo diine ji dafay am sikk gàkk yàlla ne xam naa ni seytaane dina ñëw te dana def liggéeyam waaye su boobaa nag diggante ba mu daw ñam daru nañ taxaw defeere diggante ba ndax mbokk alali yàlla la ndax rahmaani ak rahim yépp turi mbokk la yàlla jël ko ci turam dugal ko suñ biir kooku dañ ko war a topp fasloo bay naa ko waykum waaye bul ne suma yoon nekkul ci de déedéet bul ne bañ koy def dugaluñ ma ci yow fexe rek ba defee loolu la la islaam wax alquran loolu la la wax wattaqullaha borom yi tëkku na te mooy yàlla nee nañu ragal ko nan lañ koy ragalee yàlla dañ koy gëm ba pare soog de ko mën a ragal tey nan lañ koy gëmee dañoo fexe xam ko xam nga nag foofu kenn amul ngànt ci ne duma xam yàlla shahida laahu annahu laa ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist yàlla dafa defar gouvernement am ne seede naa ne kenn la malaaka yi seede ne yàlla kenn la mu indi borom xam-xam ñu troisième personnage ci gouvernement bu yàlla ñooñu la wax ni ñooy judd yi ñooy xamal ni lan mooy ragal yàlla ndax kenn xëyul rek xam lépp lii mooy ragal yàlla te ragal yàlla mooy fondement bi su baaxee lépp baax waaye su bonee dara du taxaw ak diine bu mën a doon nag bu ragal am ragal yàlla mi bind su amul rekk lépp yàpp yàlla ne na ngeen ragal yàlla ci kaw ragal googu nag léegi wax na la ñaari point nañ defer nañ ko ragal résultat bi ñëw laalakum turhamun ki nga xam ne am na lépp bokkut ak buur yi nag yàlla déedéet bokkut ak buur yi de dañ wuute xam ngeen fu yàlla wuute buur yi ñeenti affaire la wuute buur yi yàlla dafa wuuteeg buur yi ci ñeent am na lépp ba manqué wu dara kenn fekkut ko ci man na lépp ba tëliwu dara kenn fekkut ko ci xam na lépp ba dara réerul ko sañ na lépp ba ragalu dara inna salaata kaanat alal muminina kitaaban mawquutan julli jot na nañ julli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 حيانا سلام حي على الفلاح islam muy asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu waaleykum bu loolu weesoo ñi ngi nuyu di ziyaara kilifa gi kilifa diine yi fi fekk rawatina sunu sëriñ sunu njiit bi toog sunu wet war ñoo defal waxtaan ci thème bu am solo mu nekk thème boo xam ni day wax ci mbokk te lim ci jot waxtaan rek macha allah dafay wane ni am na solo te aussi day wane ni boroom diine la waaye aussi tamit thème bi muy waxtaanee maîtriser na ko bu baax kon ñi ngi ñaan suñu boroom. xam-xam bi gën a sell yàlla gën a dëgëral taxawaayam bàyyi ko ci kanamu njaboot gi ak kanamu taalibe yi mu continuer du nu guider ci yoonu siraatikal mustaqim euh, bi ci topp nag mooy di nuyu chef de village bu Diagnel muy sëriñu Ousmane di El Hadji tamit ba pare. nekk chef de village kon moom ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara di ko sant lu bare bare ndaxte yittey dëkk bi yitteem la ko def yittey arrondissement bi yitteem la ko def yittey département bi yitteem la ko def yittey région bi sax yitteem la ko def kon donc lépp loo xamante ni nii ñu ngi koy nas di ko nocc luy jërëm askan bi di ko jëmale kanam du si tàyyi di ci dox du ci tàyyi di si wax kon ku mel noonu bu nu toogee si bis yu mel nii war nañ ko sant gërëm ko si kanamu askan wi ba nu xam ni taxawaayam rafet na à travers lui ñu ngi nuyuwaale chef de village yi fi teew yépp di nuyu tamit kilifa diine yi ak kilifa aada yi fi teew yépp di nuyu sunu yaay yi fi toog sunu frères yeeg sunu sœurs yi nga xamante ni nii ñëw nañ fekkee ci jotaay bi di sant yàlla rek di wax alhamdulilahi rabil alamin comme ni ma ko amee habitude di ko waxee ndax jotaay yu mel nii à chaque fois bu ñu ci invité dañuy sawar dem bokk ci mbooloo mi fekke jotaay yi mi ngi mel ni jotaay yu ñuy ubbee ay jumaa wala ay jàkka ndaxte bis buñ fa demee rekk dinañ fa jëlee lu bees lu yeesal sunu pas-pas kon nu tàyyi di ñëw di fekke jotaay yu mel nii di wax ni sous-préfet Abdoulaye Daouda Sall mon fi adjoint mais dafa dem voyage Dakar motax mo de le tout pour ko comme faral di rek gouvernement bi parce que li taxi si autorité administrative bi mo le président de la république ak l'ensemble du gouvernement kon donc sunu teewaay ci jotaay yu mel am solo ndax dafay taaral jotaay bi wai aussi day wane ci fan fànn tamit nii ñun ñi fi askan bi moo nu fi tax te nañ leen bu baax a baax kon dani rafetlu invitation bi di ko sante ñi nga xamante ni nii ñoo organiser bis bi te yàgg nañ ko organiser yaakaar naa ni sëñ Ousmane mi mooy wax sànq niima ma bii mooy fanweer ak benneelu édition bi mu nekk lu am solo ndax bëri na ci jotaay bi ñoo xamante ni nii bu nu génne woon ci seeni at fanweer ak benn yaakaar naa ni la say des du bari tàmbalee ko ci man mi nga xam ne buñ ko ci génnee woon. yaakaar naa ni li ciy des fukki at ak ñett lay toll wala fukki at ak ñaar kon loolu yàgg na yàgg na te ñoom boobu ba léegi yàlla mi ngi leen ci suturaal te chaque fois jotaay bi day gën a am jëmm gën a taaru gën a am daraja man yaakaar naa ni bii mooy sama ñetteel yoon wala ñeenteel yoon may fekkee jotaay bi kon maa ngi bëgg a yàgg di fekkee jotaay bi ndaxte bi ma ñëwee fii ak léegi juróomi at si lay toll kon boo ko fekkee ñetti yoon ba ñeenti yoon yaakaar naa ni jotaay boobu am na gëdd boo ko jox am na place boo ko teg kon dañuy wax rekk nii lépp loo xamante ni nii wàcce nañ ko fi ci ay kaamil ñaan ko fi pour ñi nga xamante ni nii ñooñu jiitu ci biir suuf yàlla na yàlla nangu ñaan yooyu yàlla na yàlla oyofal suuf ci seen kaw yàlla na def àjjana firdaws doon seen àjjana waaye tamit yàlla def ñi nga xamante ni nii ñoo fi nekk di leen ñaanal chaque année yàlla bàyyi leen fi ban koy gën a mën gën a dëgëral taxawaay bi gën a dëgëral wér-gi-yaram gi ba chaque année ñoom ñu koy def muy gën a taaru euh, ñaan gi aussi di ñaan suñu borom mu law ba jariñ askanu Sénégal té ñaan mom képp ku wax amin rek fi nga bok kon dañuy wax amin pour que ñaan gi jariñ ñi nga xamanteni ni ñom lañ ko jaglé jariñ wa dëkk bi mais jariñ askanu Sénégal té kenn wul ni Sénégal coup diine la dëkkub la xam-xam la mag ñu ñi là. ba chaque fois bu nous ay ring, rëng nous bu des ñaanee suñ boroom rekk suñ nous nangul exemple que bu ay élection présidentielle te jaxase won na torop khalifa diine yi taxaw ci taxaway bo xamni ni bu rafet la bu nu yëgeeg bu nu yëgul suba ngoon guddeeg bëccëg ñi ngi doon ñaan pour senegal genn ci diggante bobu ñu tollon te yaakar na ni genn nañ ci ak gennin bu rafet ba ñi nga xamanteni ni fogon nañ ni Senegal dina am fu mu ag ci jafe-jafe à travers le monde mujj gi dañu wax sax ni senegal modèle bi mu am ak démocratie bi mu am ak maturité bi mu am ba chaque fois bu amee jafe-jafe génn si yeneen dëkk yi sous-région yi war nañ see jàng bu nu xoolee sous-région bi yëpp presque dëkk yi wër Sénégal yi si ëpp ay coup d'état moo fa am yàlla defal na nag ñun ñu dem si ay élection yu jàmm ak salaam génn si ak jàmm ak salaam. fal ay njiit yu bees ak salaam ah di wax ni nak état continuité la ndax président de la république amna ñukoy fal mu nekk majorité mais bis buñ ko xasee fal ba tabb ko ba tek ko palaasam mu ngi melni comme ni ni tabee de village yi rek même bu fekkee amna na ñu ko voteelul sax mo doon sen président kon ñu nangul ko yandi. di ñaan sunu borom yan bi oyof si moom ak képp koo xamante ni ni ànd na ak moom. di ñaan aussi tamit ñi nga xamante ni ni ñoo fi nekkoon continuer di jàppale gouvernement bi fi génne woon si ay activités administratives ñu gën a dëgëral taxawaay bi gën leen a jàppale mais aussi comme ñoom ñu koy waxee gën see am humilité ndaxte. ñun bu buñ fi toogee population moon fi tax a toog kon dafay jaadu comme que état continuité la ñu continuer di leen taxawu fa nga xamante ni nii ñi fi nekkoon fon leen daan taxawu ndax lu dul jeex amut suñ borom lépp loo xamante ni nii jox na la ko rek am na ab boo xamante ni nii dana ko jëlaat bu dee doole am na àpp boo xam dina ko jëlaat bu dee alal am na àpp boo xam dina ko jëlaat bu dee sax su ruugi sax am na àpp boo xam ni dina ko jëlaat kon donc lépp lu ñuy def rek ñu sóoraale si suñu borom ànd si ak humilité ànd si ak humilité wàccee suñu bopp oyofal suñu bopp suufeel suñu bopp xam ni lépp loo fi am rek bu du woon population bi la nga fay jaay ak la nga am du am njëriñ kon population buñ fi taxee toog lépp loo xamante ni ni dañ koy def danoo war bu nu gëstoo ñu gis ñu taxaw seen wet kon donc kaddu yooyu rek laa amoon si ay kaddu yu mooy yëkkati bañ a guddal di santaat ñi toog si jotaay bi yëpp di leen gërëm di wax ni nag bëggoon naa toog continuer fekkee jotaay bi wax dëgg yàlla. Euh, jotaay bi sax moo tax gontu ma dem dem dem voyage euh, dama waxoon su ma paree tey si suba conseil municipal bu Ndofane dama bëggoon a génn dem ay yitte ma doxi mais sous préfet bi ma waxee mu ni ma conférence bi am jañeel dama bëgg nga teewal ma fa ma ne ko conférence boobu moom sama sama yëfi bopp la kon donc dinaa fomm fi ma waroon a dem ba dem fa ba ñëw. doga mën genn génn sama yenen yité kon donc dama len koy ñaan rek waxtaan bi nak amna solo suma ma soñoon ma tok fekke ko parce que dina ci jangé dina si amé xam-xam bu bes dina am lu ma jëriñ ci digënté nit ak wanté wante euh, di len ko delu di ñaanal rek mo mën a dem dox yenen activité parce que weekend bi rek lañu am pour mën genn dox yenn activité yi kon donc maa ngi leen di sant di leen gërëm lépp loo xamante ni nii wax boo xam ni jàpp ngeen ni jaarut yoon a ah, si man jàmm yàlla bu di bii la lépp lu ci rafet rek ñu santee ko suñu borom kon maa ngi leen di sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah macha allah monsieur le sous ñu ngi lay sant ñu lay gërëm ci turu Ousmane dëgg kàddu yi rafet na matal na jotal na euh, loo wax sa diggante ak Diengel rek ñun seede lañ ci lu ñu wéer la lu ñu leer la te itamit xam nañ seen immunité seen suufe ak seen wàcc ngir xemoog nit ñi mën a joxe seen mission xam nañ ko te ñu ngi koy seede ndax yàlla def na kumbal xeet bu fa am suñu ginnaaw ngeen di taxaw waaye suñu paree gis nañ ni ngeen di wàccee seen bopp ni ngeen di suufalee seen bopp ndax kilifa su fekkee ne dangay jariñ ay nit mbooloo dañ la soxla danga nga war a wàcc ndax ñu mën a jot ci yow ndax ñu mën a jëriñu ci xam-xam bi kon yàlla def na ci yow loolu waaye tamit yàlla def na ci yow euh, li nga xam ne mooy sa liggéey muy sa digganteeg Ousmane surtout ñun loolu lu ñu lu ñu lu ñu mën a seede la ndax néew na loo xam ne lu ngeen di dox ci biir dëkk yi ci ay litige ci ay jafe-jafe diggante borom dëkk yi te nekkul ne da ngeen di jël ci Ousmane mu ànd ak yéen wala ngeen yebal ko sax mu dem teewal leen fa kon xam nañ seen diggante soo daggee sa liggéey xam nañ kenn bi ni mu toll ci yéen nga ñëw teewal ko donte benn minute la woon sax doy nañu. ba ndokk ba nga xamee ne sax li nga fi def lum tuut tuut def na fi 30 minutes waaye ñu am occasion bi ñu demee julli ji rek ñu ne nañ def benn porox ndoll def intihaasu fursa profito jox la kàddu gi parce que xam nañ ne amoo jot su ko defee sëriñ bi nga ñaanal ko ku baax la ku mat a ñaanal la yàlla yokk ko incha allah yàlla defal ko càkkutéefam ndax itamit am nañ ci yéen yaakaar ci ñaan gi di yàlla defal la jàmm. ñu daje fi at déwén incha allah kenn bañ a manqué yàlla yokk ñu ci zahir yokk ñu ci baatin defal ñu boolem càkkutéef kon sëriñ bi kaddu baa ngi noonu. ñu ngi koy sant bu baax di ko ñaanal yokku yokku zahir ak baatin benn la addiinu asaasul mulki wal mulk haarisuhu diina mooy taxawal islaam waaye islaam nguur moo koy sàmm bu sàmm amul rekk diina metti kon nag ñu ngi lay sant ndax ñii nga xam ne ñoo nekk ci kaw lii lañ santaane kenn ku nekk gox ba nga nekk la xew ci islaam demal wuutu leen kon nag dafa mel ni tey te amuñ ci benn sikk sàkk président de la république ba ci sous-préfet bi nga wutu ñoom ñëpp teew nañ kumbal teew nañ jëñal seen kàddu teew na fi seen yéene teew na fi seen lépp teew na fi kon jërë ngeen jëf ndax bis ni ki tey samedi la te samedi dafa bari ay xew-xew te kenn ku nekk bëgg na ngeen demal ko eh, kon nag ñu ngi lay sant bu baax nga dem ànd ak jàmm bu baax <coughs> kon mbokk yi yal nag ànd ak yokku yàlla nag yal na yokk bu baax a baax a baax yokk saahir ak yokku baatin nguur gu bees gi yal na la ci yàlla jox cër du xormati seedi lu jot te sàmm borom dëkk yi e, ñoom it yal na jig réew mi jigleen mi su ko defee <clears throat> waaw kay jërëjëf waaye jërëjëf jërëjëf